juróom ñeent fukk laaji nit ak tonti yàlla xaaj bu jëkk bi asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu tey ngir dégtal leen seen émission bi la tudd yoonu njub nu ngi leen di gërëm yéen ñépp ni nu bind di laaj ay laaj ci mbind mu sell mi ak li mu jàngale yaakaar nanu ne am ngeen mbég ci bataaxal yi ak téere yi ak kaset yi nu leen yónnee nu ngi gërëm ët ñi takku ci déglu sunuy émission donte bindu leen nu ay bataaxal nu ngi ñaanal ñépp yàlla barkel ku nekk ci yéen te mu leeral seeni xol ngeen xam bu baax yoonu mucc wu jub bi mu tëral tey ji li nu fas yéene def xaw na wuute ak li nu baaxoo di def danu bëggoon a bokk ak yéen laaj yi nu sunuy mbokki déglukat laajoon laaj yooyu lanu jagleel émission tey bi ak bi di ñëw dinanu fexe tontu laaj bu ci nekk nag tey sukkandiku ci mbind mu sell mi kese ndaxte kàddu yàlla gi rekk mooy leer gu wóor gi nu wara gindi ci biir lëndëm gi ni ñu ko binde ci saboor cëy aji sax ji sa kàddu nit la ci samay tànk di leer ci sama yoon kon nanu jàll léegi ci laaj yi tey nag ngir jàppalenu ci liggéey bi am nanu ci biir studio bi suñu benn mbokk ngir mu jàngal nu laaj yi nu war a tontu léegi kon nanu ko bàyyee ak kàddu gi. jërëjëf laaj bu njëkk bi nu jot ci benn bataaxal mooy bi yéen ñiy def émission yoonu jub yi ci ban diine ngeen bokk. nun nag ay taalibe kirist lanu alxuraan dafa nuy tudde ahlul kitaab liy tekki gaa yi téere bi am na ñeneen yu ñuy tudde ay chrétien li tekki gaayi kirist waaye sunu leen waxee ne ay chrétien lanu bëgg nañ leen itam fàttali ne am na lu bari ñu teg seen bopp ay chrétien waaye loolu taxul ñu nekk gaayi kirist yu wóor ñu nu ko jànge ba noppi yeesu kirist moom ci boppam ne woon na du képp ku may wax borom bi borom bi mooy dugg ca nguuru yàlla aji kawe ji ka cay dugg mooy kiy def coobarey baay bi nekk ci kaw li nu leen mën a xamal ci gàttal rekk mooy ñun ñiy waajal émission yi yàlla dafa defoon bu yàgg ci sunuy xol nuy wut dëgg gi ngir xam ko danu bëggoon a xamal sunu bopp waxu yàlla aji tund ci te ci sunu gëstu ci bibal bi maanaam ci tawret ak saboor ak téerey yonent yi ak linjiil ñu ràññee ne yéesu kirist mi juddu cib janq mooy musalkat bu sell bi yonent yàlla yépp doon yëgle yéesu mooy sarax su mat sëkk ci yàlla joxe ngir fayal doomu aadama yi seen boru bàkkaar benn yoon ba faw ngir képp ku ko gëm mën a dund ci jataayu yàlla ba faw looloo tax nuy ay taalibe yéesu te mën na nanu wax itam ne réccu wunu li nu ko doon gëme ndaxte may nanu diggante bu neex ak yàlla ak kóolute fa kanam dee te it bés bu nekk rekk mu ngi nuy won takkuteem ak mbëggeelam ci borom bi yéesu Kirist yàlla may nanu lépp lu aju ci dund gu sax am nanu ci moom lépp li nu soxla ci sunu xol jërëjëf laaj bi ci topp nag laaj bu am maanaa la te yelloo tontu bu leer kii nee na man de dama am lu ma jaaxal jàng naa ci alxuraan fu sunu yonent Mohamed digal jullit yépp ñu gëm téere yi biibal bi ëmb di tawret saboor ak injil te ci sama biir xol bëgg naa gëm xibaar bu baaxu almasi bi bi biibal bi waare waaye am na ci samay xarit ñu may wax ne mënatuñu woolu biibal bi ndaxte dañu ko soppi nee nañu biibal bi am tey méngoowul ak biibal bu jëkk ba lan ngeen di tontu ci loolu nu ngiy gërëm bu baax sunu mbokk moomu bind bataaxal boobu ndaxte laaj boobu laaj bu ñuy faral a dégg la ci sunu àddina si ñu bari foog nañu ne mënuñu wóolu biibal bi ndaxte dégg nañu ne am na ñu ko soppi woon laaj bi nekk ci sunu xel nag mooy ndax tuuma jooju dëgg la ndax am na ñu yàq biibal bu jëkk bi bala nuy tontu laaj boobu am na lu nu bëgg a laaj ñiy jiiñaate ne am na ñu yàq téere yonent yu jëkk soo nee dañu soppi biibal bi wax nu fan nga jële xalaat boobu ñi koy wax fan lañu sukkandiku kañ lañu soppi woon biibal bi kan moos moo ko soppi fan lañu ko soppee yan coppiku ñoo ci nekk nan nga xame loolu ana firnde ji ci lu gàtt li nu la mën a wax mooy soo gëstoo ba xam dëgg gi dinga mujj a xam ne xalaat bii di dañu yàq bibal bi amul benn fondement bu wér ñi wax loolu ci léeb yu susul fenn lañu sukkandiku amuñu benn firnde bu wóor ne am na ñu soppi woon bu jëkk bi moona am na firnde yu bare yuy wone ne kenn soppiwul bible bi soo goree te ci xew-xew yi jëm ci bibal bi dinga mujj gis ne yàlla aji kàttan ji aar na kàddoom gu sell gi mu xiiroon ay yonentam ñu bind ko ci biibal bi tey ji ci musée yi ak ci université yu mag yi ci àddina si ay boroom xam-xam denc nañu daanaka 24000 maanaam ñaar fukki junni ak ñeent ci téerey linjiil yu màggat di kóllëre gu bees gi yoo xam ne ñoo jiitu jamonoy Muhammad ay téeméeri téeméeri at ci lu jëm ci kóllëre gu jëkk gi nag moom maanaam tawreetu musa ak saboor ak téere yonent yi war ngeen xam ne denc nañu ay téere yu jiitu jamonoy mohamed lu ëpp ñeenti téeméeri at te boo méngalee téere yu màggat yooyu ak téere yu nu am tey ci sunuy loxo dinga gis ne benn lañu yàlla aar na kàddoom kenn mënula soppi biibal bi ndaxte ca ndorte la amoon na ay téeméeri téeméeri téerey biibal yu xutbakat yi bindoon ak teey ku bëggoon a soppi biibal bi dafa waroon a soppi téerey biibal yépp te loolu mënula nekk war ngeen xam it ne ci jamono ji topp ci jamonoy Christ ay boroom xam-xam tàmbale woon nañu sotti biibal bi ci yeneeni làkk yu bare te wuute kenn mënul woon a dem ba soppi biibal yi nekk ci àddina sépp loolu mënul woon nekk itam tey jii nag bind nañu biibal bi ci lu ëpp ñaari junniy làkk yu wuute borom bi yàlla aar na kàddoom te ay surgaam ñoo ngi koy sotti ci làkki waa àddina si ndaxte dafa bëgg ñépp dégg ko ak seeni nopp xam ko ci seeni xel nangu ko ci seeni xol te mucc mbokk yi ci lu wóor ku wax ne kàddug yàlla dafa soppiku kookoo ngi saaga yàlla mu ngi koy sosal di wax ne yàlla mënula aar kàddoom waaw ràññee nañu ne am na kenn ku bëgg a soppi te yàq kàddug yàlla kooku mooy iblis xam nañu ko ci tawret jàngoon nanu ni yàlla neewoon aadama bés boo lekkee ci garab gi dingeen dee waaye seytaane lu mu waxoon aadama ak awa mu weddi li yàlla wax ne du ngeen dee noonu la seytaane jéeme woon soppi kàddug yàlla te ni ngeen ko xamee aadama ak awa tànnoon nañu jàpp ci li seytaane wax waaye ca mujj ga lépp xewoon na ni leen ko yàlla waxe woon ca bés boobu aadama ak awa deewoon nañu ci seeni ruu te seeni yaram it tàmbale wow te mujj a dee seytaane fenkat la kàddug yàlla aji sax ji mooy dëgg gi seytaane mën na nax nit ñi ne leen biibal bi soppi nañu ko waaye loolu taxul mu soppiku ndaxte borom bi yéesu moom ci boppam nee na kenn mënula randal wax yàlla asamaan si ak suuf si dinañu wéy waaye samay wax du wéy mukk amin jërëjëf ci tontu bu leer boobu ñettalu laaj bi nag mooy bi lu tax ngeen tuddee yéesu doomu yàlla yàlla jurul kenn te kenn juru ko kon nan la yéesu mën a nekke doomam waaw jërëjëf gëstu nanu ci laaj bu am solo boobu ay yooni yoon léegi waaye ndeysaan ba tey am na nit ñu bare ñuy xeeb tur wu neex woowu di doomu yàlla ji ndaxte xamuñu li mu tekki ci bu jëkk nag xam leen ne du nun noo tudde yeesu doomu yàlla ñun tudde woonu ko ko yàlla moo ko ko tudde ñu nu ko gise woon ci mbind mi yéesu am na lu ëpp ñaari téeméeri tur ngir nu mën a gën a xam ki mu doon bi maana dañu ko tudde bunt bi waaye loolu taxu yéesu nekk bunt tudde nañu ko it ñam wi joxe dund gi waaye loolu tekkiwul na yeesu ñam la mel ni ceebu jën bu ñuy lekk déggoon nanu it yonenti yàlla yu wuute tudde woon almasi bi mbotem yàlla mi waaye loolu taxul yéesu nekk am xar naka noonu itam bu yàlla tuddee yeesu doomam war ngeen xam ne loolu tekkiwul ne yàlla dafa takkoon jabar ba am ci doom kuy xalaat lu nu mel mu ngiy sosal yàlla su ma bi demee bitim réew dañu may tudde doomu Sénégal ndaxte Sénégal laa bawoo waaye loolu tekkiwul ne Sénégal dafa takk jabar ba am ci doom naka noonu itam yàlla ak malaaka yi ak yonent yi dañu tudde almasi bi doomu yàlla ji ndax ndaxte ci yàlla la bawoo yéesu amuloon baay ci kaw suuf laata muy juddu sax mu ngi dëkkoon ca asamaan ndaxte mooy kalimaatu la di kàddu gi nekkoon ak yàlla ca njaalbeen ga moom la mbind mi wax bi mu naan ca njalbeen ga fekk na kàddu gi am te kàddu gi ma nga woon ak yàlla te kàddu gi yàlla la woon kàddu googu ñëw na doon nit dëkk ci sunu biir mu fees ak yiw ak dëgg ndam li baay bi jox jenn doom ji mu am képp kenn mësula gis yàlla waaye baajo bi di yàlla te nekk ak baay bi moo ko xamle kon gis nanu ne yéesu kirist mooy kàdduk yàlla ki yor bindu nit lan mooy kàdduk yàlla xëy na dinga tontu ne kàddug yàlla mooy li yàlla sol ci xeli yonent yi ñu bind ko wax nga dëgg mbind yonent yàlla yi dañu mel ni ay bataaxal yi nu yàlla yónnee waaye may leen nu nu laaj leen su fekkee ne sa benn xarit bu baax dafa dëkk ci benn dëkk lan moo gën ci yow mu bind la ay bataaxal rekk walla mu ñëw seetsi la moom ci boppam waaw mu ñëw moom ci boppam seetsi la moo lay gënal ngir nga mën a jàkkaarloog moom ngeen waxtaan léegi nag ndegam yàlla ku màgg la te dara tëwu ko te ndegam dafa bëgg xamal nit ñi ni mu mel ak lan mooy coobareem ci nun ndax danga xalaat ne dafa nu yónnee ay bataaxal kese walla dafay ñëw moom ci boppam seet sino mbokk yi xabaar bu baax bi yonent yëgle mooy yàlla ci boppam naroon na gane niti bàkkaarkat yi te ci linjiil gis nanu ni yàlla wàcce woon kàddoom di ruwam di reeni xolam ngir mu yor bindu nit dëkk ci biir nit ñi nit kooku mooy yeesu kirist te bañ ko walla bëgg ko yàlla dafa ko tudde doomam ne ci mbirum yeesu kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa ame bànneex déglu leen ko yéesu yeeloo na ñu tudde ko doomu aji ji ndaxte mooy kàddu gi nekkoon ak yàlla ci njalben ga di ki ko ci yàlla ba feeñal jikko yàlla ci nit ñi ku gis doom xam nu baayam mel ku xamoon yeesu kon xam nu yàlla mel noonu mbind mi nee na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 su fekkee ne da ngeen bëgg yaatal seen xam-xam ci lenn ci li ngeen dégg tey mën ngeen a bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li biibal bi wax bi mu naan nit ñax la ndamam di tóor tóor kese ñax day wow tóor tóor ruus waaye kàddug borom bi day sax ba faw